ñu wax ci actualité bi parce que yow nag yaa ko junj yaa ne futur roi des ñu am combat bu nga ni dañ koy demal mu combat bu mm-hmm. ak ak Balla Gaye. Uh-huh. alors ñun ñu dem ci sëriñ comme yow ñu waxtaan ak moom. Mm-hmm. mu gis na ni combat bi mën na bañ a ñàkk am ndax na bañ a ñàkk am. comme darajay laa ilaha illallahu laa ilaha illallahu. illallahu muhammadu rasul rasulullah non ah xam nga kooku fu muy tëdd ak man fi may tëdd du benn bokkuñu kër bàmmeel ak sama bàmmeel bàmmeelam ak sama bàmmeel du benn duma werante kenn nag ci gis-gisam ndax yàlla dafa maye waaye man Selbé Ndom taalibe sëñ Tuubaa bii jël am na ba pare. alors léegi wax exactement. wax loolu waaye maanaam man ci ni ma ko yàlla wone ne bëre am na bëre am na. li waykat ba naan wuré dem na këng waxi mag dem na ndañ taali léegi jël am ñu ne jël am na ba pare bañu ma muuduloo suma doom la. Modou li ma am dikko ma ko yoroon may ci xaalis ba ma nekkee buun Modou wax naa la Modou Lo toog na sama néeg sama doom la mooduloo ma nag mosumaa dem kër Modou may ma waaye dem naa kër Balla Gaye toog naa kër bàll Gaye Balla Gaye sama doom la mooduloo sama doom la hmm? samay rakk lañu samay doom lañu man maa leen doomoo mbër yëpp même même su ma leen magee ñaari fan sax dama ne samay doom lañ par respect bi ñu ma jox waaye làmb rek moo demee noonu yàllaa ma ci boole rek ma war a wax di wax nekkul ne damaa faral kenn ndax ma faralee Modou Lo tey yàlla ne mooduloo Lo euh, Balla day daan Modou Lo du ma ci man dara bu ma faralee Balla Gaye te yàlla ne Modou Lo day daan Balla Gaye du ma ci man dara man yàllaa ma may rek may gis rek di wax nañ ko xamee noonu du ma ci bëgg sax di wax ci làmb ji ndax maanaam comme li may wax rek làmb ji maa koy neexal damay neexal rek nii ñu xam ne damay neexal rek kenn bañ ma cee saaga ndax fi mu ne nii bu ma demee marché caare dund gi gars yi dañ may sonal fu ma génn dañ may sonal léegi nag miin naa ko par rapport ak bu njëkk ba ni ma ko doon naqarloo ndéegi man damaa belende fi mu ne nii <laughs> belende laa damaa belende. ki nga xamante mhm. dem nañ dañ taali. foog jël am. ku toog ci géew bi. jël boobu la ñu kenn ki romb dem yoonam. <laughs> non non mënuma mënuguma décrire. xam nga làmb ji des na euh, ñu ngi si janvier la ci kattanu yàlla moom la ko père Gaston di tëgg ci kattanu yàlla. yal na ko yàlla eggaleel. waaw waaw xam nga respe la. respe la. respect bi ko ñépp jox man tamit boobu laa ko jox ba may ba ba suuf ni ma fekk ñu wormaal ko naan ko Père Gaston man tam noonu laa koy wormaale rek wax dëgg yàlla mosuma koo tëg bët loxo ak sama loxo mësta euh, nuyoo mosuma toog sax mu dégg mu tudd sama tur kon maanaam li nga wax turam sax moo tax ma nit ma tudd turam. waaye moom nekkul kuy tooñ man it bëggumaa tooñ da di dafa tëgg làmb joo xam ne c'est c'est c'est euh, le combat du siècle euh, lamb la joo xam ne làmb ju neex lay doon euh, waaw tabaarakallah yal na ko yàlla yeggaleeg ak jàmm mu am réussite làmb ji yegg dara bañ koo yàq ci barke yonent bi loolu laa yéene ndax maanaam làmb ji Modou Lo dina ci dolleeku Euh, Balla Gaye dina ki dolleeku kenn ku nekk diñ ci am xaalis faj say soxla dimbale ci jaami yàlla yi ah, man sax yal naa ci am yal nañ ma ci séddu sama wàll ah loolu rek la mais <laughs> non mënuñu ko wax <laughs> gis nga bu ñuy taxaw sama buntu kër gi wala ñu may carte marché caare doo ko fekkee xalaat ma ko <laughs> dañ may carte